Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. dañuy fàttaliku jaamu yàlla bu rëy goo xam ni gii jaamu yàlla moo wéetal yàlla wéetal goo xam ni kenn mësu ko ca liggéeyal yàlla liggéey boo xam ni kenn mësu ko fa fekk. ba yàlla di ko fay fay goo xam ne du dog ba yomal xiyaam bu ñu fi dajaloo di fàttaliku loolu defal ko fi néeg bii nga xam ni sëriñ bi jiitu ci kanam ànd ak ñun taalibe yi ñu liggéeyal ko sëriñ Touba amuñu lettre bu ñu yóbbu bitim réew amuñu fondation bu ñu financé sëriñ bi rek a jiitu ànd ak taalibe yi ñu di ko jox mu may jox ñu di ko def ci batti euh, ci jumaa ji ba mu mel nii kon na ma ko waxee koo leen fi gis ku ne moo war a sant sëriñ bi sëriñ bi nag nee na li nga xam ni mooy solo yi daje bi mooy fàttaliku jàmm yàlla googu fàttaliku ñaari guddi yooyu fàttaliku coono boobu mu ngi wax taalibe yi ni leen fii yar la fi bëgg ak teggin ak fàttaliku Sëriñ Tuuba ak jaamu yàlla ak tamit dalal ko ganam yi nga xam ni fu ne dinañ fa jógee bugg fuñ fi dara fii kenn du fi doon dara ki fi doon dara kenn la rek mooy Sëriñ Tuuba te moom lañu mën a fàttaliku bëgguñu tàccu bëgguñu yuuxu bëgguñu dara bu fekkee ni tàccu am na kenn ko moom muy Sëriñ Tuuba bu dee mbégte Sëriñ Tuuba bu dee fital su Sëriñ Tuuba sëriñ bi nee na nag ku bëtt loolu di nga daje ak sëriñ Touba te bëggul taalibe yi kenn daje ak merum sans kon yóbbante baa maa ngi jégalu ma ne ko Anthony fii dem fii la de ma ne ko alhamdulilah ma ne ko ndox mi nag ma ne ko ndox mi nag Mbàkke mun ma mel ndox du dara jële ko fii ni ma tey la lan lan ban weer la ñu ne ma ne ko ñoo ngi ci tabaski bi mu ni ma ñaata fan ci des ma ne ko fukki fan ak juróom-ñaar mu ni ma na nga ko na fi jëlee ndox mi te ngeen jullee fi tabaski te bàyyi pàkk ba léegi bi ma ko waxee mu yomb yomb goo xam ni fukki fan lañ ci teg mu mel nii noppiwul ba tey jii kon moom gisoon na pàkk bi ndaxte pàkk bi dencub sëñ Touba la woon damay waxanteeg bu baax muy sëñ Isaaxa mu ñëw ma koy visité loo di ko ko nettali mu ne ma xanaa xamoon ne ndox moomu moom la sëñ Touba nëbbee woon pàkk bi ba kenn mënu cee jublu ndaxte terrain bii ñun fi la ñu màggee fi lañu ñu fowee mu tuddoon terrain foyer doon ay garage mécanicien ay baaji naar yuy wulli ay der ak ay tool waaye kenn musu ko moom mu tuddoon sëkk bi lébi yi di fi julee mujj ndox mi dàq leen ñu dem ci parc à booba ba léegi kenn moomu ko kenn musu ko moomu nga xam ni Serigne Touba ay mbiram kenn xamu ko yàlla dogal ci mbiru àddina ma jëkk a nekk maire ci localité bi gis pàkk bi rek ñu koy occupé mu bari mécanicien ma xëy ni dama koy dëgër piir booba Abdourahmane Sow mooy ministre de l'intérieur mu ni ma mënuloo ko ndax lii mën naa indi fitna ma ne ko jox may alkaati rek mu jox may alkaati ma dëgër piir leen ndekete booba xaw ma sax li may def ndekete booba Serigne Touba moo ma yabal ci pàkk bi pour ma commencer koo nettoyer ndekete booba lii rek la ma bëggoon a liggéey loolu loxo ki mu jaar nag ba tey jii ma mën a defal sëriñ Touba dara loo xam ne lii maa ngi ñaan yàlla sëriñ bi nungul ma ko ci loxo Cheikh Mouhamed Lamine Bara Fallilu la jaar kon jooju jëmm duma ko fàtte mukk ci àdduna waaye nag xam naa ni maamam ju baax jooju moo ko ko sant mu defal ma ko waaye wolof day wax ni kéwal bu lekkee aloom na ko gërëm a man sama lépp ci Cheikh Mouhamad Lamine Bara Falilou la jaar may gërëm Serigne Touba di ko sant di ko gërëm di gërëm njabootam di gërëm njabootu Serigne Touba dañuy faral di wax ni dañ lay gërëm liggéey bii man doonuma ci dara Serigne Touba moo liggéey liggéey bi moom la ko yàlla fayee ndax ku xool liggéey bi ni mu mel ak jafe-jafe yi mu mel ak ni mu gaawee ak ni mu taaroo moo lay won ni dañoo nekk ci kanam rek man ak sëtam bu baax bi waaye liggéey bi sëñ Touba ko liggéeyal boppam ndax amul lenn loo fiy gis di wër àddina bi ci jàkka yi ak jumaa yi ñu copier ko fa indi ko fi loo fi gis c'est original loo fi gis rek c'est original kon bu ñuy gërëm kenn la war a gërëm bu ñuy sant kenn la ñu war a sant muy Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla gën a fayal ndaxte ñun taw feex mooy Serigne Touba ndaxte mënuñu ko woon a ñàkk waaye sëriñ Touba pexe mënu cee jotale nit xel mu rëy mënu cee joxe jotale nit. li ci mën a jotale nit nga bokk ci mooy ndimbalu yàlla mooy tawféexu suñu borom kon tawféex yi ñu yàlla jox ba boole ñu ci Serigne Touba mënuñoo sant sans borom ba jot tawféex loola kon Serigne bi maa ngi jéggalu bañ a guddal ñu am ci biir projet bi ay projet ci biir muy tali yi di lamp yi la jël engagement ni dinaa leen defaral tali yépp defaral leen làmp yëpp te loolu 7 milliards de francs lay jar kon boo leen demee ngeen santal ñu ko ndax mënuñu koo ñàkk waaye nag moom boobu ak président Ablaye Wade mi ma tudd ci pàkk bi ñoom ñaar ñoo war sant Serigne Touba président Ablaye Wade ak président Macky Sall ñoo war a sant Serigne Touba. ndaxte lii ñu doon bokk na ci sabab li Serigne Touba bëgg dara ñu ñëw def ko réew mii ñu ne moo gën a tuuti ci àddina Sénégal réyul deux cent mille kilomètres carrés la population bariwul quatorze millions la kon tuuti na ci àddina ci do tolluwaay tuuti na tamit ci ñu ko dëkkee te Serigne Touba yàlla àddina la ko jox àddina la yàlla jox sëriñ Touba kon ku yàlla xiir ak koo mënti doon yàlla xiir ci la nga yëkkati yëkkati bant jublu ci liggéeyal sëriñ Touba yow yaa war a sant sëriñ Touba ndax sëriñ Touba bi muy ñëw ndakaaru fii muy ñëw fii ci barab bi ñu ko fi indi jële ko ci ay mbokkam ci taalibeem booba tubaab bi ku mu neex jëfandikoo ci yow booba la colonisé est corvéable et amul juste jugement amul droit de l'homme booba amul xamuñu ko on est colonisé corvéable et traitable tooñ ko indi ko fi muy ñaari guddi yu muy fàttali ko ba tey ci cellule boo xam ni taabal jiyee ko ëpp un mètre cinquante sur deux mètres mu ànd ak ngorom nga jomam nga fiitam wa ak bëgg a liggéeyal suñu boroom ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon nañ ni yàlla dina ko faye ndakaaru lu mel nii xamoon nañ ni yàlla dina faye Serigne Touba lu mel nii moo tax terrain bii bi ko président Ablaye Wade di joxe ma ànd ak président Papa Diop ñun ñaar rek a xam ni terrain bi demee ba tey jii kon bon maa ngi yemale foofu sama kàddu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 Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn